ba gmail point com asalaamualeykum wa rahmatullah da nga bëgg a jàng alquran wala tajwid wala arab wala sax fiq bul jaaxle institut daar at taqwa teg na ay moyens yu am solo pour ngeen mën a jàng en ligne fànn bu leen neex ci yooyu ci lu ànd ak organisation képp koo xam ne yaa ngi Sénégal wala sax nga nekk bitim réew ak at boo mënti am ak niveau boo mënti toll nga bëgg a jàng en ligne contactel institut daar at taqwa 78 011 07 17 wala par email daar at taqwa arobas gmail point com assalaamu aleykum wa rahmatullah da nga bëgg a jàng alquran wala tajwid wala arab wala sax fiq bul jaaxle institut alamin wal aaqibatu lil muttaqin udwaana illa ala alzalimin salaamu atammaani al akmalaani ala sayidi albashar nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk jullit yi ñu ngi sant sunu boroom subhaanahu wa taala di julli ca sangub sang ya muhammad ibnu abdillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi ajmain mu ngi ñaan borom bi mu sotti waamee xéewalam ca sang ba ak waa këram ak képp ku topp seenu yoon di xeeñtu seen mboor ba keroog péncum yàlla nu ngi dénkaat sunu bopp di leen dénk def ndigali yàlla yi ci nim nu ko digalee bàyyi tereem yi ci nim na ko tere mbokki jullit yi ñu ngi ñaaxaat sunu bopp di ñaax bépp jullit bal képp koo xam ni yërëm nga sa bopp ñu jéem a xoolaat sunu diggante ak sunu borom jamono bari na ay jafe-jafe lool fitna yi tegaloo na tooñ gi bari na jàdd yoon gi ëpp na ku nekk nag am na loo ko jiiñ ku nekkit am na koo ko jiiñ waaye am na ci ñenn ñoo xam ne dañ naan waaw nun lu nu def sunu borom ba mu teg nu lii ñooñu day seen wax jar naa déglu lool lan lañ def yàlla ba saa yi sunu ne ah xëy na bu buñ àggee ci gàpp sàngam day nu mën a noppalu nag mu mel ni yalwaan jooju dañ koo këpp wala ah fitne jii de buñ ci génnee xanaa danañ war a dal lu tuuti suñ demee ba yaakaar jooju dem ba mel ni luy jëmmu rek dal di yàkke ko kon kii laaj lu nu def yàlla ba tax yàlla tega teg nu loolu wax jooju ma ne ju jërë déglu la donte nag setalul benn yoon bu dee kuy tooñ la ni ko li ngay tooñ lu war a am la ndax yàllaa ko dogal déedéet misaal mu gàtt ci loolu mooy kii teg alalam mu béggandi kuy jël alal ñëw fekk ko fa jël ko bi maanaam sàcc ko danañ yedd kii teg alalam te denc ko xamal ko ni kaa ah, waroon nga ko denc kat denc bu wóor ba dee ko jël loola nag deesu ci déggee benn yoon ne kon kiy sàcc moom dañ koo may mu sàcc déedéet alali jàmbur moom même boo ko fekkoon ci mbedd ma danga ko faa war a bàyyi mbokki jullit yi yàlla day moo am ay tëraliinam yoo xam ni moo koy dawal ci kam kaw ay jaamam kenn du ca mucc yàlla noonu la ko soobee mu koy dawale noonu ca jaam ñi ndax mbirum sunu borom coobareem ci diggante nekkal rek la nekk mu daal di nekk innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun sunu borom bu nammee dara danaan amal rek loola am dogal yooyu nag nga xam ne yàlla da koy dawal ci kaw jaamam ñi yàlla nëbb na ci ay xikam ay xeraña yoo xam ni mën nga caaxam lenn rek waaye la ci lam doon dëgg-dëgg nag mën nga koo bañ a xam mën nga koo bañ a mën nga koo bañ a xam yàlla yooyu yi nga xam ni da koy dawal ci kaw ay jaamam mooy ay nattu aki i coona ak fitna ak tooñ yoo xam ni day bawoo ci jàdd gu nit ñi jàdd yàlla bëgg leen dëpp ngir ñu ñëw bala ñoo àgg ca fa nga xamante ne dëpp amatut ak xeetu xàjj la sa nag wala saw bëy wala saw xar wi ngay sàmm mu nar a ruur nga di ko tam-tamal ako yet loola du danga ko bëgg a mbugal waaye danga ko bëgg a delloo si ci biir coggal gi yàlla moo wax ci alquran ni wala nuziqannahum min alazabi al adna duuna alazabi al akbari laallahum yarjiun danañ leen musal mbugal mu ndaw mi balaa ngeen àgg ci mbugal mu mag mi ndax ngeen dëpp bale ngeen caa àgg imaamu jarir al tabari yi imaamul mufassirina rahimahullah nee na yàlla wax na tooñkat yi ak weddikat yi ci ni maa ngi leen di dëxal mbugal moo xam ne fii ci àdduna lay doon danaa leen ko ñamal ngir ngeen dëpp ak ñaas lay doon rek ngir ngeen corriger waat seen bopp xoolaat seen digganteeg seen boroom nee na nag loolu mooy lii yàlla di teg nit benn mën naa nekk xiif jamono ji ñuy dund ñi man seen bopp sax yëg nañu diisaayu dund waxuma la ak nag ñi nga xam ne dañuy for rek di dugal ci seen gémmiñ amuñu weer wu ñu yaakaar fenn amuñu salaire amuñu leneen dañuy xëy rek teg seen një lu leen yàlla jox ñu jël ñooñu sonn nañ lool dund gi nga xam ne nit mënut dund fii ci réew mi te amoo ko loo ci laajte tey bu subaa boo ñëwee ñun la yokku na te daa tàmbali kat xamuñu fan la jëm ba li gën a nekk nécessaire ci dund gi lu dangay dem ci biti sax di ko laaj ñu la amul far loolu nee na noonu léeg-léeg yàlla defe ko nit ay ay jaamam. ibnu jarir mu ni wala ay ray boom ay doomi aadama yoo xam ne kenn xamul sabab bi ay bakken di rot comme nii ay weñ di rote kenn xamul lu ko waral te booy xool ci saayir da nga naan du mujj fenn jamono yi ku ñu ray yaa ñàkk lay doon ak yeneen i musiba yoo xam ni yàlla da leen koy teg leen mu de ay tooñ yoo xam dañ koy jël di ko sëf ci sa kaw te mënoo ci dara ki la ko teg moo la ëpp doole amul pexe tegoo rek yàlla bi muy tudd tooñ yooyu wala mbugal yooyu tuddul genn xeetu mbugal waaye dinaa leen ñamal rek la wax moo xam nag lu mu doon loola nee na nag yomal qiyaamati wal iyaazu billaahi bu nit ñi dëpput ba àgg foo mooy azaabul ak ja nag mbokki jullit yi day bu dee yàlla dafay jël ay jaam di leen teg ay nattooke coono ngir seeni bàkkaar ngir ñu mën a dëpp dama ne nun waa Sénégal de lu nu gis ci xeetu yii ñu tudd léegi ci xeeti ay tooñ yàlla tàggat ay jaam ñu bóof ci sunu kaw lu leen neex def ragaluñ yàlla ci ñun xooluñu dara seen doole lañ jël teg ci sunu kaw ma ni loolu luñ ca gis de bu dee yàlla daf nu koy fayee ci sunu jàdd nun yeyoo nañ ko réew mi ñu war a xoolaat seen bopp lañu li fi nekk ci ay tooñante ci diggante nit ñi ak seen bopp nit ñi ci seen bopp rek tooñante gi dox ci seen diggante warante gi dox ci seen diggante lekkante alal gi dox ci seen diggante trahison bi nga xam ne ñu ngi koy fante ñoom ci seen biir kenn xamul nu mu daanaka néew na nga gis nit di dem lu dul nii ci pexem nu mu lekkee àq jàmbur rek ci la nekk saa yi su ko jekkoo da koy lekk te du yëg ni sax lekk na ko waaye booy xool suñu àq suñu digganteek nag suñu boroom suñu digganteeg suñu boroom minu moom sañ ci ñun sañal ñu digal ñu fii liñ fi bañal yàlla bari na de liñ fi jàdd ndigali yàlla bari na lool li nga xam ni bu yàlla ne nii la ñu ni ko du noonu bari na àq yàlla yi ñu jël nangu ko ci moom jox ko nit bari na lool fii ci réew mi bari na ay nit ñoo xam ni nit lañ gën a fonk ci yàlla mi leen bind faaliwuñ yàlla seen yoon nekkul ci moom soo leen dee wax sax ba tudd leen yàlla dañuy mer soo tuddee yàlla dong bàyyi ka ñu gëm ñu mer jàpp ni fu ñu tuddee yàlla dañu war a tudd kooku def ñooñu wujj yàlla iz nusawwiikum bi rabbil aalamiin soo la neexee xasal yàlla xasal yonent bi jàmm ci njëkk jàpp ci mujj danga am ñu bari ñu taxaw sa ginnaaw di la défendre waaye boo gisee ku ñaar nit topp wala ñett nit topp nga wax ci moom bu ñu faat sa bakkee nit dañ naan nit daa war a maandu loo gëmul dañ nga koy maandu waaye bu dee yàlla moom kenn du wax loolu ay nit de bu ñu dunde lii fu ñu jëm a gut ci xeetu mbugal dañ faa àgg gut waaye war nañ faa àgg su leen yàlla dabaatul ak yërmandeem yàlla nu yàlla dabaatul ak yërmandeem mbokki jullit yi doomu aadama bu am xel di xoole bëti xol su mbir ñëwee da ko war a jàngat ci wàll gu nekk waaye rawatina nag wàll gi nga xam ni mooy wàll gu jëm ci sunu borom ndax amul kenn koo xam sa doole àgg na ci nga tëx yàlla bay def lu la neex ci kaw suuf di ko defee nu mu la neexe amut képp koo xam ni borom doole nga yàlla am na fu muy fege sa doole foo xam ne ba fa àggee mu jeex loolu ñu tudd sunu daa fo borom doole ju nekk yàlla ngi lay xaara jeneen doole joo xam ne da koy sëf ci sa kaw rek sa doole fay ku jàng taarix jàng àdduna ni muy doxee xam ne noonu la yàlla mos di doxalee rek ñépp ñu fi nekkoon di sëf doole ci kaw néew doole ya ñi ñu ci gën a jige mooy firawna ndax sunu digg ak moom benn yonent doo nga fi dox mu yonent yàlla isa na yoon yàlla la doon woote ak yàlla di ko exiger nit ñi tam ñu wax ni ku waxul ni na yàlla la sa bakken du ko fekk dem ba liir yu ndaw yi nga xam ne amuñu benn bàkkaar sax ku judduñu rey ñu ne ko lu tax ngay def nanga mu ni ndax dañ ma ni ci gént képp dañ ma ni ki lay folli góor lay doon ci gént nga rey ko deful benn bàkkaar tooñ foofu la mën a yem waaye yàlla aka ko maanaam naturaliser ci lu yomb sax ci mooy ndox rek ci la ko yàlla sóob mbiram jeex nit ñi fàtte ko kon yàlla moom mu jur fàtte ci mbir yi suñu demee ba toll ci ay xat-xat nan xool nun luñ def yàlla ba yàlla teg nu lii moo gën ku nekk di jox sa morom naa ko yaa yaay sabab si di def lii di def lale mais ñun ñëpp lu nu def ba lii dal ñu parce que ñun ñëpp nag am nañu responsabilité ci lii ñuy dund ku xool lii dal réew mi ci at yu mujj yi ci ay xeeti musiba ay feebar ay accident yu dul jeex ay bakken yu dul jeex yoo xam ne yàlla rek xam ñu toll te mujjul fenn ay feebar xiif ñàkk géej gi rek li mu lekkal réew mi kenn xamul nu mu toll ay téeméeri téeméeri ndaw géej gi lekk na leen daanaka dafa mel ni sax ay weñ yu dee rek pour nga dégg sax ku ci wax wala ku ci communiquer sax pour ay weñ yu doon dem lañ dee nañ ci yoon wi jeex na ci bakkenu doomu aadama waaye li ñu dund ci at yii ci alal ju bari ju yàqu ay tàkk-tàkk ci ay marché ay kër dee yoo xam ne dee yu bette la xiif ak ñàkk goo xam ni sunuy maam nag wax dëgg yàlla amuñu woon lu ne gàññi waaye amoon nañ xel mu dal te loolu mooy dund xel mu dal ku ci nekk mën naa am ci sëngal nga dëkkoon waaye ci sëngal boobu moo la gën a doon étage cinq étoiles moo la gënoon moo la gënoon étage cinq étage moo la gënoon étage cinq étage laa bëgg a wax man naa am day cere lañuy ñuy reere cere yann sax lay doon léeg-léeg waaye moo leen gënaloon ay ginaar yu ñu njoñ ndax dañu amoon tranquillité ci seen wàllu xel da seen xel dafa daloon nun ñii ku ci nekk li nga yor boo xewul sa baa yurutoon lu toll de mais nekkoo ci jàmm ci fër-fër nga nekk loolu nag war nañoo laaj lan moo xew lan moo am yonent bi sallallahu alayhi am na lu mu junj nan ko déglu ba xam danañ ci am solution wala déet yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam yéen muhaajiruna yi juróomi mbira ngi yoo xam ni su wàccee fii yéen yàlla bu mu leen fi fekk bu fiy ñëw yàlla bu mu leen fi fekk mu ni lam tadhar alfaxishatu fi qawmin qattu xatta yuclinu biha illa fasha fihim taacuunu wal awjaacu allati lam takun madat fi aslaafihim alladina madaw qablahum nee na ñaawteef bu ngeen demee ba mu tasaaroo ñaawteef musta jóg ci àdduna bi yàlla bindee àdduna ba léegi ñaawteef a ngi fi am mais nag di ko manifester nag nee na bu ngeen demee ba àgg ca yàlla dina wàcc ci ñeen ay épidémie ay feebar yoo xam ne seeni maam xamuñu ko woon mu teg ca ni wala tanqadul mikiyaala wal miizaana illa uxudu bi sinin wa shiddatul mu'nati wa jawri sultaani alayhim su ñu demee ba nit ñi suñuy jaay di wàññi ku la jaayub kilo soo demee sa kër liibar genn waa liibar lay doon baa sax du ko mat ci li ñuy peese mais ak ci li ñuy wax xam ne nit buy wax ak yow da koy déglu nii rek parce que nit nit la mais li muy wax dara nga ci gëmul dañuy wax ci kaw di wax ci suuf double langage lañu yor xam ne ñi ci xam ne liñ lay wax ci kaw moom lañ lay wax ci suuf yu àdduna bi asaabia xam ne da koy déglu muy wax nii rek mais lim lay wax ci kaw boo dëddoo leneen lay wax loolu mooy an naqsu maanaam wàññi gi ñuy wàññi ci njaay mi noonu la ñuy wàññee ci li ñuy wax maanaam nit ñi foo koo xam ni boo koy gis day wax nii rek mais li muy wax bu pare da koy sànni fële te xam ni waxut dara lu yàlla wax ni moo leen ciy fekk bekkoor ngeen di dund ak ay dépenses yu cher ak ay njiit yu dëng wa jawru sultaani alayhim njiit yu dëgg yoo xam dañuy jël doole ji ngeen leen jox dal teg ko ci seen kaw di leen duma guddi ak bëccëg ngeen di yuuxu te kenn du leen wàllu la yonent bee ko wax sallallahu alayhi wa sallam walam yamnau zakata amwalihim illa muniu alqatra min alsama nee na bu demee ba nit ñi seen asaka dee dootuñu ko génneeti ci seen alal jal rek muy bari yàlla day téye am ndoxam wala bu ndox ma ñëwee it du barkeel nee na walaw al bahaim lam yumtaru bu du woon sax bàyyi ma yi ndox dootu wàcc kaw suuf walam yan ah, walam yanqudu ahda allahi wa ahda rasulihi illa sallata allahu alayhim aduwan min gayrihim suñ demee ba firi kóllëre ak yàlla seen diggante ak ñoom ak kóllëre ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yabal ay noon ñu ñëw dal ci seen kaw kóllëre rek yàlla nag suñu digg ak moom nan ko xool ci lim moom ndax nu ko koy jox ndax jaamu gi mu ngi jaar ci aw yoon xaqullahi ala al ibad nag yonent bee ko firil boppam Muaz ibnu Jabal daf koo ko yaa Muaz atadri ma al ibad ndax xam nga àq ji yàlla mu am ci jaamam yi mu ne ko ah loolu xanaa yàllaa ko xam ak yonentoom mu ni ko an yaabuduuhu wala yusriku bihi shay'an mooy nañ ko jaamu te dañ ko bañ koo bokkaale ak dara xool nag jooju ba fii ci Sénégal nu dem dañuy dem sax ba boo tuddee bokkaale am ñoo xam dañuy mer bokkaale booy xas tudd rek seen xol yi di fudd bëgguñu ko dégg comme si loolu bokkul sax ci diine te bokkaale mooy lu yàlla moom nga jël ko jox ko nit di nit moom moom jaam ñi yaay borom jaam ñi yaay bind jaam ñi yaa ñu moom diw yàlla la na wax joo xamante ni ku ko mos a wax ci jamono yonent bi yonent bi jàkkaarloog yow ndax yonent bi ñi mu doon xeexal ñëpp lii doo lañ doon wax ay nit di ko wax tudde seen bopp jullit ba noppi jàpp ne lu normal la ñuy wax te kenn ñi mu wuccaa teg baat nag kon agsi nañ foofu waaye ahadu nabi sallallahu alayhi wa sallam lan moo dox sunu diggante yonent bi gëm koo ni coow ci aw yoonam bañ a wàcc sunnaam mooy ci lim fi indi te lu ñu wax lu mu wax ñu ni dëgg la te gëm ni moom la yàlla mujjee yónni nag ci yonent yi beneen yonent dootu ñëw ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ci def ñun boo nee sunna sax am ñu mer sunna sunna solal ngeen nit ñi sunna sunna te boo doon wax leneen ba suba la ñu ñu kontaan lool waaye boo nee sunna rek nga gis seen xol yi li fudd te ni ay ni ay jullit lañ soo dee yonent bi nee nañu ñu ne waaye lu di wax waxe ku nekk mën naa folli waxe yonent bi te waxe yonent bi mënut a folli waxe kenn fii ma ni loolu ci firi kóllëre suñu diggante yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam yonte bi nee na sallallahu alayhi wa sallam walam a aimatuhum bi ma anzala allah wa taxayaru fi ma anzala allahu azza wa jal illa jaala allahu ba baynahum nee na bu ñu demee ba seeni njiit teg fa la yàlla wàcce wala ñu tànn la leen neex di jël la leen naqar ñu teg fële yàlla dana def ak béjoo ci seen biir ñuy tojante ay bopp xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax lépp lu ñu dal rek ay sababam xadis bi tudd na ko te it nag booy xool da ngay gis ni lépp a ngi fi nag léeg-léeg sax lépp dajaloo ci mennum réew far te lii benn bu nekk luy alag la léeg nga gis yépp dajaloo mbokk jullit yi yàlla nga nuy nettali sunu diggam ak yonentu yàlla aadam ci ba mu ko diggalee lenn mu bañ benn la ko diggal te yàlla sax ne dafa fàtte def ko fa nasiye lan la yàlla jëflanteeg moom daf ko daal di wàcc ci saasi lekkal ci garab yépp bam des genn garab gi bu ko laal seytaane ñëw di ko man manee ba mu laal ko yàlla ne ko du demalaa tere nga bañ di digal la nga def kon génnal sama àjjana dégraté naa la wàcc naa la yàlla ne wa iz qul wa qul naa yaa aadam uskun uskun anta wa zawjukal janna wa kulaa minha ragadan xaysu situma wala taqraba hadihi shajarata fa takuna min alzalimin fa azallahuma alcheytaanu anha fa axrajahuma mimma kaana fiih wa qulna ihbituu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fi l-ardi mustaqarrun wa mataa'un ilaa hiin waaye nag fa talaqaa aadamu min rabbihi kalimaatin fa taaba alayhi innahu huwa tawaabu rahiim yàlla ne dama ni aadama dëkkal ci kër gi yaag sa soxna lekk leen lu leen neex ba mu des genn garab gi muy nattu ndax li yàlla di ñu tere nattu képp la nde buñ ko defee ñun dong lay suñu bopp la ñu lor yàlla kenn mënu ko lor ci leen waaye yàlla li bëgg mooy ndax bu ma leen ne def leen di ngeen def ndax su ma leen bàyyi leen di ngeen bàyyi aadama seytaana tarxisloo ko fa azallahuma seytaan yàlla génne leen àjjana génn leen wàcc leen ci genn garab gu ñu lekk ñun ñaata garab lañ lekk ñaata garab lañu lekk ci garab yi ñu yàlla tere kenn xamul nu toll ba noppi nag bëgg di am jàmm ci kaw suufu si yàlla bu yàlla diglee duñu def bu teree duñ bàyyi nu bëgg nag di am jàmm luñ bëgg am ko loolu mën naa nekk ko ko defoon ci kër nit sax nga ngeen am ngeen am lente kër dong goo xam ne lu tuuti la boroom kër gay joxe dépense lu mu diggal nga lànk lu mu tere nga lànk lu mu digle doo ko def bu yàggee ngeen am lente de bu yàggee ngeen am lent kon mënunoo nekk ci lii lépp ba noppi nekk ci kaw suuf di am jàmm mënut a sotti waaye aadama la ko soowee mooy dafa jéggulu ba mu jéggulu yàlla jéggal ko ba mu jéggaloo yàlla jéggal ko kon li war mooy képp koo xam ne yëg nga ni mooy nga sa borom jàdd nga ay frontière am rebelle nga ci kaw yàlla parce que am na loo xam ni tamarrut la rébellion la da ngay ci kaw sunu borom subhanahu wa taala mooy yàlla ne bul def nga ne ko damay def am na ñoo xam ne sax fa ñuy àgg ak yàlla kenn ñi moo koo tudd moom kenn ñi moo koo tudd naaqidun ahdahu kóllëre gi ngeen fasante woon yépp nga fecc ko te yàlla ba mu ñu bindee ñu ñëpp daf ñoo dajale ni alastu bi rabbikum maay seen borom qaalu balaa ñu ko ax kay yàlla ne ah yéena ko wax de baa xam ngeen lu may bañ ëllëg ku ñëwaat fii parce que di ngeen ñëwaat an taqulu yawma alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama ashraka abauna min qablu wa kunna dhurriyatan min ba'dihim naa bi afatuhlikunaa bimaa fa'ala al-mubtiluun waaw yàlla dama danoo fàtte woon wala na fekkoon nit ña nekk ci nàngam ñu nekk ci nangam yàlla ni loolu laay bañ de ñun ko duñ ko def waaye taxul yàlla yam ñun foofa de dafa dabbaat ay ndaw li leen mu ngeen demee nga fàttali ma sama jaamee la ma leen waxoon baa fàttewuñ ko yàlla di yónni di yónni di yónni di yónni di yónni ba mu soob ko mu tëje ko muhammad sallallahu alayhi wa jox ko nag message boo xamante ne ba keroog àdduna di tukki ku fi ñëwati rek moo lay àtte muy xaatimul anbiyaa yi wa imaamil mursalin moo mujjee ñëw waaye nag moo njëkk moo jiitu ñëpp ku ñuy wax ab yonant wala lu ñuy tudd ab dootul ñëw ba keroog yowmal qiyaamati gëm ko moog weddi di islaam daanaka ñoo yem mbokki jullit yi képp koo xamante ne yaa ngi xool nag nit ñi bu leen dara dalee léeg-léeg jàngat yi ñu koy jàngat ak fañ ko war a jàngat day sori lool maanaam nit ñi bu leen dara dalee lu jóge ci yàlla dañ koy puusante ku ne naan sa moroom yaa ma ko teg kii naan yaa ma ko teg kii naan yaa ko waral waaye lu nu def ba mu dal nu ñu koy xalaat du néew la kenn ci sëti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ni zeynul abidin la bis dafa génn ci këram rek am ko ko dab di ko saaga sëtub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu taxaw rek di ko déglu bi waxee ba àggal mën ko jërëjëf muy dellu ci këram mu koy topp mu ne ko te ngaa wàññi ko nag bala laa nit ñee gis bu ñu la gisee nga ko de mu dellu nee bi mu ñëwee dafa dugg néegam julli ñaari rakka yëkkati ñaari loxoom ni ko yàlla day li ma def ba nga teg ma lii loolu laay jéggulu ndax jàpp ni kenn war naa àgg ci ñàkk war maag man fii lu dul ni rek dafa am lu ma def jullit noonu lay xalaat lu nu def ba yàlla teg nu lii nu dëpp rek su nu dëppee rek yàlla indi xéewal bokk jullit yi kon nan moytandiku merum suñu borom te dellu ci moom te alerte yi muy def ñu di ko déglu yàllaa ngi ni wax ci alquran ay yoon ci bàyyi leen xel nangam mais nit day déglu wala day dégg mbir di ko firee nu bokkul ni ñu ko koy waxee benn sëfoor dafa mos di romb ci virage fekk virage ba ay mbaam a fa taxaw yu baree baree bari am ko naan ko mbaam mbaam nu mu ko déggee jàpp ne kooku da koy xas mu naan ko man nga naan mbaam delloo ko kàddu gu ñagas tourné rek dal ci mbaam yi oto ba këpp bu la nit dee wax fexe la déglu lim lay wax lan la nga décortiquer lim lay wax pour mën a jariñoo ci moom mais nit ñi léegi xol la ñuy dégloo yàlla nee na awalaa yarawna annahum yuftanuuna fi kulli aamin marratan aw marratayni summa laa yatuubuuna wala hum yadakkaruun xanaa ñoom gisuñu at mu jot ma teg leen ay nattu benn yoon ba ñaari yoon te du leen tax dellu ginnaaw du leen tax sax xalaat ci li may def lan la lii yàllaa ko wax ci biir alquran nun at mu jot du ma wax at mu jot waaye bis bu nekk yàlla teg na lu ëpp ay natt mais duñ ko décortiquer jéem a xam lii ban message la ci yàlla di envoyé nit ñi pour ñu jéem koo topp mais du ñu demee xalaat xalaat yooyu yàlla waxaat na ci alquran ni wa laqad axadnaahum bil azabi fa ma stakaanu li rabbihim wa ma yatadarraun xata ida axadna alayhim baaban da azabin shadidin ida hum mublisuun yàlla nee na jàpp naa leen ci ay mbugal teg naa leen ay natt delluwuñu ginnaaw dëppuñu dañuy ñaak rek di dem ba yàlla na xëy ubbi leen musiba moo xamante ne dañ ci dugg te dootuñu génn lii it alquranul karim la mbokk jullit yi lii dox ci sunu diggante ñu koy tooñante duna foog ne amuñu yàlla joo xam ni ku néew doole ku nekk bu ñu la tooñee boo yëkkatee say loxo yàlla dina la wuyu ñi néew doole xam ne amuñu menn pexe lu dul seeni rangooj lañ am daam amuñu doole yi biti waay nag am nañ buur boo xam ne mu ngi jàkkaarloog ñoom laa tasliman na ida ma kunta muqtadira fa zulmu axiruhu yufdi ila nadami tanaamu aynuka wal mazlumu muntabihun yadcu alayka wa aynu llahi lam tanami waykat ba nee na boo jekkoo di tooñ bul sigara de bul kontaan de ndax yaa ngi tooñ koo xam ne d'accord ay rongoñ képp la am amut leneen waaye am na yàlla joo xam ne bis bu yëkkatee ay loxoom mu ngi ni jàkk fi moom te bis dina fay wala tey wala suba kon tooñ yi ñuy defante ci suñu biir ak yi ñuy def di ko teg ci ay way néew doole bu yàlla intervenir rek ñu xam ni dikk na mbokk jullit ñi nga xam ne amuñu ku leen yiir ñii di ay yatiim ñàkk ay way jur ñii di ay doomi mbedd comme ni koy waxee nit ñi di jalgati ci seen kaw guddi ak bëccëg ndax dañoo jàpp ni amuñu yàlla joo xam ne mu ngi leen di déglu te saa yi suñu ñaanee yàlla subhaanahu wa taala dana leen wuyu ñi nga xam ne dañ leen a tooñ jël ay tooñ teg ci seen kaw defuñu dara lu dul ni dañoo néew doole lu dul ni dañoo néew doole buur ya ko daan def ak ñeneen ñu dul buur parce tooñ gi ñëpp la ñëppay tooñante ku ëpp sa borom doole teg ko ci kawam loolu la yàlla di dajale nag ba mu bari mu teg ko suñ kaw ñun ñëpp ña doon def ak ñañ ko doon defloo ak ña mënoon a waxtu ni cell bu yàlla di mbugal ñëpp lay duma soo dee ñaan yàlla du la faale yontu bee ko wax sallallahu alayhi wa sallam yàlla dana leen yoxal waaye du leen fàtte wa kadalika axdu rabbika ida axada alqura wa hiya borom nee na gaaw maa jàpp waaye su ma jàppee dina metti gaaw ma jàppu ndax bis bu ne mu ngi lay envoyé ay message di la wax ni la yaa ngi yaa ngi jàll yaa ngi jàdd dellu bis bu ne feu yaa ngi tàkk naa la li ngay daw ay vitesse wàññil sa tànk teggil mais xooloo yooyu la yàlla di yónnee da ngay xëy rek yàlla déclenché mbir yi nag xam ni boo demee da ngay gis nag da tooñ sa bopp mais sa borom yàgg na laa wax ne la yaa ngi tooñ yàgg na noo alerté ci teggu teggi leen seen tànk mais dafa mel ni bis bu ne dañuy gën di ñaaj foo ñu jëm nag bu ñu fa àggee yàlla bu ñu fa àgg du gënal kenn kon nun dañoo war a xoolaat suñu bopp te xam ni nun ay nit lañu wekk suñu bopp te xam ni ci àdduna la ñuy dund joo xamante ay nit lañ fi nekkal yoo xam ne ñu ngay dox ci seenum réew jàmm di fa am lépp di tegu ci aw yoon ndax jàdd boo xasee kenn boo xasee jàdd ñépp seetaan ko bu yàlla dee mbugal ñépp lay mbugal yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam bis yàlla dafa yónni malakal mawtu ci ab dëkk wala malaaka ci benn dëkk ni ko demal nga alak leen ndax seen tooñ ëpp na malaaka ni ko diwa nga fa te jaam bu baax la mu ne ko boo demee tàmbaleel ci moom ndax la nit ñi doon def ci ak di yépp dañ ci woon miix noppi maanaam koo xam ne yàlla doole la la dénk booy faj doole ngay faje muy nguur nguur amul droit di seetaan ko jàdd mu naan lii laa cay xool wala lii laa cay xool déedéet doole jëñ jox pour jubbanti ku dëng la amoo ci droit yow parce que looloo tax ñu jox la doole waaye ki am kàddu soo waxee nit ñi dégg sa kàddu di am lu muy posé wax ju leer lañ la sant ginnaaw boo bëggee da wax ci kaw suñ la xañee say àq nga woo rajo yépp ñu ñëw nga gedd sax léeg-léeg tëgg fëgg ci taabal ji joxuñu ñu cër joxuñu ñu nangam waaye bu nit ñi soxlaa waxal nag waaye buy aajo yi nit yépp nga di ko wax ci suuf say aajoy bopp nga koy wax ci kaw mënoo convaincre kenn barakallahu li wa lakum fi alquran alkarim wa nafa'ana allahu wa iyyakum bima sarafihi min alayati wa dhikri alhakim yaghfiru allahu li wa lakum wa lisaa'iri almuslimin min kulli dhanbin wa khati'a allahumma ruddna ilayka raddan jamila wa la takilna ila anfusina tarfata aynin ya qawiy ya aziz allahumma anta rabbuna wa laysa lana rabbun siwaak